entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. stratégie de communication ñooñu dañuy observer peu. François budget de muus a Yoko, Sénégal oui Sénégal ba Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. Paul, l'université, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. salaamaaleykum Abdou Nguer allo. allo waaw. lay ziar bu baax a baax. de na def. ñu ngi sant yàlla naka coono yi. ah maa ngi yaa ngi yaa ngi en direct ci VIP People TV. doo xaar parce que am na fu ma nekk nii de xam naa ne bruit bi moom. ah mais pourtant ah pourtant ñi ñu lay ñu lay ñu lay déggee baax na de. waaw da dañuy gaaw dañuy gaaw ñaari ñaari laaj laa lay laa laaj rek. waaw. waaw Abdou ginnaaw ma leen nuyoo baax di suba incha allahu euh, président euh, Diomaye fay day fas yéene def euh, li ñuy woowee prestation de serment ak mbokk yi nga xamante ni moom mooy président mag sàll doon loo xamante ni histoire Sénégal baaxoo na ko doo gis bu président bu wàcc beneen di yéeg il faut ñu jàkkaarloo joxete li nga xamante ni moom mooy lengee en tant que analyste politique euh, Abdou Nguer loolu noo koy jàngatee. Ah, waaw loolu day du jaar yoon la ndax président buy dem moom. Mhm. faaw ki koy remplacé mu jox ko lenge yi comme ni ngeen ko waxee. dëgg la. ah loolu moom du lu bees ci mhm. am. dëgg la Abdou nooy jàngatee d' abord euh, falub ki nga xamante ni moom mooy ba Bassirou Diomaye Faye ak attente yi nga xamante ni moom la ko sénégalais di xaar. di xale di président wu xale yaakaar naa ku ne aw xam ne addu kii ki xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye eh, ñeent fukki at ak ñeent la am mooy 44 ans d' abord ni ko Sénégalais yi falee 54 virgule 8 virgule 28 pour cent noo koy jàngatee en tant que analyse politique. waaw Sénégalais yi ñoo volont ñoo sentir changement rek. Hmm. ñoom ñoo sentir ne dañoo war a changer li fi nekk. Hmm. am na leneen lu yaakaar ne moo gën li fi nekk. Hmm. kon dañuy respecté seen soirée seen bëgg amul dara nak lu ko mëna justifier seen bëgg bëgg la def nañ ko noonu lañ ko sentiré yaakaar biñ ci am tamit dañ leen di ñaanal mu bañ a tas côté boobu loolu laa ci xalaat abdou bëgg dem dégg nañ ci ñoom ñenn ci waa pasteur fii ñu ni eh, bu ñu yaakaaree ne kat présidence jomaay day toog rek lépp lépp baax dañuy nax seen bopp na leen bàyyi fii quelque temps ñu mën liggéey réew exactement est ce que tamit ñoom li ñu sénégalais mooy bu ñu rek réew mi baax est ce que tamit nekkul ni Euh, dañu xam ne réew mi dina xaw a nekk si ay situation moo tax ñuy waxee noonu wala. xam nga waa Pastef dañ doon def wutin wu ñaaw liñ doon wute moo ñaaw. Hmm. liñ doon moo ñaaw moo taxit seenu yorin du yomb niñ nar a yoree yomb du yomb. Hmm. parce que am réew boo koy wut nga ne dara fa lépp a bon damay ñëw pour defar. Hmm. buñ la ko joxee. boo tourné waatee naan nit ñi may leen ma fii ak ñaari atal may leen ma xam nga loolu luy wax. waaye ginnaaw loolu xam ne nag xam nañ te yàgg ci réew mi xam nañ ni mhm. ku ne ne dinaa jël réew mi tey mu dox tey waxu dëkk mhm. mhm. réew boo ko jëlee da ngaa soxla temps boo xoolee contrat yi temps xoolee ak temps bi dafa soxla temps daal. mais ñoom nanguñu woon ne sax temps bu day am dañoo ne woon bu ñu jëlee réew mi parce que maa ngi déglu benn vidéo Ngagne Demba Touré. muy wax Sénégal li am ci gaz li mu am ci pétrole nee na loolu ci ci réew mu normal warul warul am ci réew nit di dem faju ji bitim ñu ngi leen di xaar. Mhm. bokk na ci dañu waxoon ne Alioune Sall jël na six mille milliards ci pétrole bi ñu ngi leen ciy xaar pour ñu dem nangu ji ko ak milliards yu bëri yi ngeen doon dégg quatre vingt quatorze milliards yeeg milliards yooyu nga xam ne dañoo mën wax ju rëy mhm. waaye Sénégal yi ñu ngi leen ci xaar ak teenu pétrole yi ñu waxoon ne Macky Sall la ñu koy tànq di ko jaay ñi dinañ leen jéem a teg xel waaye nag suul gaz du ko teree xeeñ na ko amee ay daan waxe tey di la wax jàmm sens. Mhm. mooy nit ñi leen bàyyi xel di leen surveiller ba lépp lu ñu waxoon nag bind nañ ko man seen programme li ci wax yëpp bind naa ko. Hmm. waaw bind naa lépp teg ko nag su ma doxalee six mois état de grâce six mois laa leen di may bu six mois yi jàllee nag mhm. dinaa commencé jël benn benn ci li ñu waxoon di ko indi di ko la wax askan bi naan leen lii lañ waxoon lii lañ waxoon lii lañ ci def defuñu ci yar ak teggin dëgg la Abdou euh, da lay laaj d' abord yow sa wàllum sécurité parce que Abdou barki dem da nga gis benn vidéo euh, kenn ci waa Pastef fi muy Azura li ki nga xamante ni moom mooy téye drapeau Ousmane Sonko bi chaque fois no drapeau Sénégal bi chaque fois bu euh, Sonko def ay ay caravane mu am ay kàddu yoo xamante ni na ko ci yow muy mun yow ki nga xamante mooy Abdou Nguer yow moom da nga da nga maanaam da laa défier maanaam da laa wax yoo xam te ci benn plateau télévision ne kat Abdou Nguer yow day nekk maanaam euh, seen seen mbir la maam daal mbiram daal sa mbir da koy da koy liggéeyante quoi entre yow ak moom est-ce que d'abord fi mu sécurité mi ngi ñëw bu baax a baax a baax. waaw man ci kaaraangeeg suñu borom laay dox man. Hmm. man ci kaaraangeeg yàlla laay dox ndax man daal dama xam ne yàlla bi mu dindee ba wàcce ma. Hmm. li mu dund ci àdduna yëpp bind na ko. Hmm. dara duma ci mooy nag. nag samay mbir dafa ëpp ci loxoy Azoura Fall nee na samay mbir moo koy jëlal boppam dafa ëpp ci loxoom na ko tegaat ci suuf ndax samay mbir àttanu hmm. beneen di ci waaw même kilifaam sax àttanuñ samay mbir samay mbir yàllaa ko yoon te bare na hmm. Hmm. li ci des nag réew mi dañoo nekk ci réewu yoon kenn amul droit fajar sa bopp dëgg ndax boo xoolee def naa keroog benn vidéo tontu ko ji sama xam ne jaru ko parce que man dama jàpp ni nit ku baax laa mhm. su pare ba ba mu paree ci man dafa dem saaga yaay jomaay fay mhm. di président mhm. kon su dama xas man moo dem saaga président kon man damay jàpp ne man tekki naa dara ci réew mi loolu sant yàlla laa koy def parce que mu nga saagay waa Pastef képp ku ci mucc doon nit ku baax xaw ma dégg nga maam déet dégg nan la waaw saagay waa Pastef yi ku ci mucc doo nit ku baax nit ku baax du mucc ci saagay waa Pastef yi man mën naa nangu ne Jomaay Fay nit ku baax la parce que comme jël na ci saaga yi rek nit ku baax la ñoom duñ saaga nit ku bon nit ku baax rek la saaga nit ku baax rek la xas nit ku baax rek la yàq deram kon man chaque jour sama xol day gën a sedd ci waa Pastef wax ñaaw ji ñuy wax ci man ak xas yi parce damay jàpp

saaga na cinquante quatre pour cent i sénégalais yi ba Bassirou Diomaye Faye ba ci ñun ñi nga xam ne voté luñ ko sax daf ñu saaga waale parce que c'est le père de la nation suñu bàyyi la saaga ñun ñëpp. Hmm. bu taxaw di non non baaluñu ko buñ ko yóbbuwul ci kaso bi gis naa nag waa Walfadjri ak Cheikh Bara Ndiaye di ko jéem a défendre fii amul luñ ciy défendre président Diomaye ñun ñëpp ko bokk. Azoura Fall buñ ko dugalu ci kaso bi na leen leer ne nag. ci ci offense au chef de l'État lu neex waaye na ko wax. yow nañ ab Fall kaso mooy këram kii mérite wul nekk ci mbedd yi dox dañ ko war a dugal ci kaso bi. te buñ ko dugalul ci kaso ko dugal ci kaso bi. ah ko yow yow da ko yow da ko da nga ko porté plainte. ma ne Azoura laa la wax. waaw damay damaa génn su ma dugg seen Ndakaaru Azoura Fall nañ ko dugal ci kaso bi ndax li mu wax jomaay wala dinaa ko dugal ci kaso bi ndax li mu ma wax parce que mooy këram. wóolu sama justice nak man kuma xam-xam ne ku wóolu justice la dëgg la man lépp ku leen wóolu laa te nag dinaa ci dem ba hmm. eh, mu jeex tàkk lu mu laaj dinañ ko su fekkente ne nag mënuñu koo faj boobaa man dinaa ko fajal sama bopp de mais mais ab abu ngeen est ce que tamit nekkoon ne Altouzza am ñu naan dafa xaw a am problème psychologique maanaam xel mi xaw a yemb parce que ba mu génnee prison yàgg est ce que nekkul kàddu yi da koo waxee noonu ndax xel mi neexul wala. Sénégal ñaari ñii ñoo fi gën a ñàkk avocat. dof ak mala dangay dem def sa yëfi réewande dem tooñ saaga ko la neex xas ko la neex ñu ne daa dof da ngay dem rey nit ñu ne daa dof da ngay dem violer doomi jàmbur ñu ne daa dof dof amul avocat ci réew bi sa way sëñ Bas xel comme nee na xamadi moo gën a yées réew am na ñoo xam ne réewuñu dañoo xamadi dañ leen a war a xamal na xam nga dañ leen a dugaloon ci kaso bi ñu naan ay détenu politique lii lii la saaga nday président doo détenu politique bu dee nag saagaw nday président dañ ko bëgg a dugal ci détenu politique mais na neex dafa nañ na mbir mi dem ñu leen gën a réew a ngi fi foofu gën leen a ñaaw na baax de. balaa ma lay kii balaa may bàyyi rek euh, loo ma wax ci euh, li nga xamante ni moom mooy gouvernement Bassirou Diomaye Faye bi ñuy ñeneen bi ñuy xaarandi euh, la nga ciy xaar yow su fii ak gannaaw suba incha allah. boo xam ne bu mën a liggéey. comme ne nañ nag ñoom responsabilité yoo xam ne dañ koy yor pour doxal réew mi liggéey réew mi hmm. te nag waaw yu bëree bëri yi ñu waxoon ne dañ koy kii ak duñu romb trente ministres yooyu yëpp ñu ngi leen di xaar ñu ñu liggéey réew mi daal la ñu xaar tey maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla defal leen ñu réussir amiin parce que bu ñu réussir Sénégal moo hmm. Sénégal moo échec hmm. kon li may wax rek dañuy ñaanal président Diomaye yan bi ñu ko yan mu oyof ci moom toll amiin ndax heure bi suñu dund suñuy alal yëpp yàlla ci loxoom la ko teg dëgg la alali bàyyi te bàyyi alali jàmbur loolu moom ci la jomaay war a njëkk a jóg donte nag ñoom ñoo ko fi indi woon waaw taal alali jàmbur yooyu comme ñoom ñoo ko fi indi woon mën nañ koo jëlaat delloo ko fa fa ko jële woon kon yooyu neex naa réglé nit ki li indi dina ko mën a yóbbuwaat jërë ngeen jëf entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu stratégie de nañ seen bopp budget dafa musa di yokk. Sénégal oui, Sénégal Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar, au Sénégal. Hall, l'université, de port maritime, d'aéroport et de chemin de fer depuis 1870.